waaw gis ngeen général Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ba mu demee Casamance bu ñu ko fa bawoon réglé woon na lii lépp ba mu sotti waaye dañ ko fa daal di jëlee Sénégal daal ku jub la ñuy bañ ku fi bëgg a yàgg ci sa poste moom dafa mel ni da war a dëng pour yàgg fa mais boo dee jubal doo dugg ci ay diil ak yooyu non yow moom léegi ñu dagg sa bopp loolu moom seetlu nañ ko fi bu baax a baax a baax ndax nag noo ngi fii bëgg a yàgg ah. waaw noo fii bëgg yàgg yooyu yépp dañ koo gis ci réew mi. waaye nag keroog ba ñu fexee ba fexeel sénégalais yu baax yi àndoon ak Senghor gëm réew mi te yoruñu culture tubaab a ah booba lañ commencé yàqu léegi nag nuru léegi du sax du nuy tubaab parce que tubaab bi melatul nii ah tubaab bi léegi day ñëw sax Afrique di jël suñuy valeur yu baax yi moom di leen jéem a jàng bàyyi noog seen yu bon bàyyi noog seen yu bon parce que <laughs> sunu indépendance nin ko jotee fa la fa la yàqu gi tàmbalee en 1960 même avant parce que ñi nu tegoon ci boppi réew yi ñi ci ëpp tubaab bi da leen ak acculturé ba def leen i tubaab ba nu gëmunu sax seen culture man euh, euh, Senghor bañu ma ko de mais damaa contre yennam gis na keroog bi ma dégloo benn documentaire mu ni benn géwal dafa ñëw di tagg baayam mu ni ma culture française ne me permettait pas de croire au paroles du griot keroog laa ni kii comme ne moom avoué na ni sa culture il a une culture française su bëggee defar Sénégal du sotti Sénégal ki leen di defar da yor culture sénégalaise culture africaine xam boppam lool gëm gëm aadaam ak cosaanam waaye koo xam dem nga ba ni maa culture française na ma permettait pas de croire aux paroles du griot maa dégg Senghor wax ko ci documentaire kooku bu la jiitee te ngay sénégalais yow dee nga dee nga gis nga bu boigny mi nga xamante ni moom africain la woon bien que jàng na tubaab ah boo demee réewam rawoon na lool waaw man ba ma demee Côte ca laa gis tali yii ñuy bàkkoonum tey ba ma demee Côte ci année quatre-vingt yi laa ko fa fekk taxi yu bees pul mbedd yoo xam ne trottoir yi kenn du falal waaw mais Sénégal Sénégal moom da da ngay jóg gis sax ay étrangers yu jóge biti réew ñoo ñëw fattuñu ci suñ biir réew ah. mais nee na boole ñëwee sax ni leen fi ngeen di lal euh, waruñu fee lal ñun la ah ñun bu nu joxee xaalis rek lu nu neex def fi ah fii dégg ngeen fi ku woote ne day toog ca réewam yónnee xaalis fii Sénégal ñu defal ko passeport yónnee ko ko buy traversé réewam yor kayitu euh, kayitu réewam buy dugg Sénégal génne bu Sénégal gis ngeen fii ay gaay ni ay daje na ay Ghanéen ci benn ambassade ñu yor passeport Sénégal dégguñu sax wolof ay sénégalais ko lijjantil ay sénégalais leen ko lijjantil maanaam euh, réew bu fekkee euh, ña war aar réew ma ñooy njub lang ya réew mi yàqu na waaw bant yi ngeen di dégg ñuy dagg àllub Casamance bi ay sénégalais yuy liggéey ci mbirum aar bant yi aar aalam bi ñooy ànd ak ñoom di di di di complice ñuy sàcc alali réew mi di ko jaarale Gàmbi di jaay maa la ko wax de ñu bari woo nañ ma ci wax ma ko am na ku ma masa a tudd sax benn agent ma ne ko du ma tudd trop mais nee na ma ooye forêt la nekk mais day ànd ak gars yi sàcc àll bi di di jaay àll bi te sénégalais la bu weer dee ñu fay ko mu nuy jaay nag far ba bu Casamance doonee désert bu mu leen bett de parce que ginnaaw noo ko amee baax na loolu c'est très grave c'est très grave waaw ku bëgg alal da ngay nangoo liggéey rek boo dul yàq tey mos dara bu yàggee nga am dara te lu lew nag moo gën am na ñoo xam ne yaakaar naa bu ñu tëddee du ñu nelaw de di sàcc ba ngoon nga tëdd <laughs> waaye nag dégg ngeen li sëñ jàlloo wax rek neen na ñooñu du ñu gudd fan te bu ñu dee dem safara parce que safara xëy na tooñ yàlla lu mu bari bari bari sunu borom bari na yërmande mais tooñ sa morom yàlla dafa maandu de yàlla dafa maandu bu fekkee da ngay tooñ nit ñi xamal ni yaag nit ñee koy lijjanti de yaag nit ñi yéen a koy lijjanti yoonu yàlla nekku ca am na ñoo xam ne maa ngi koy wax ak Modou Faye ci suba rek dañuy dem yowmal yu baale kilo kilo tuyaaba di ko fayee bor ba mu jeex takk ñuy jël nag bàkkaar yi ñamu ñamu ñamu tooñoon di ko dollil nag te yoratul dara yoratul dara la mu yóbbaale woon lépp ci lu baax fayee na koy bor lan moo koy def tooñ nit safara ku fa dem nit la fa yóbbu yàlla ku bari yërmaande la waaye bu fekkee koo mën a njublang njublang ko koo leb doo ko fay am na ñoo xamante ni pour ñoom bor moom atte bor du fay atte bor mooy fàtte ko waaw parce que fay newul ca bopp ba njub lang ku nay njub lang waaw parce que ñanu waroon a jox yëf yi joxuñu leen ko de ñanu waroon a jox yëf wax dëgg yàlla joxuñu leen ko ay tubaab yu ñuul lañ ko jox sar pa pare nag jox leen mission lii lépp seen liggéey la maanaam détruire leen seen valeur yi nga xam ne ci ngeen daan reposé wu ba ku ci jëf ñu ni ñu ni ñu ni gàcce ngalaama nangeen fexe ba yooyu deñ jàngal leen leen nu ñuy ñàkke jom nu ñuy fàttee seen bopp fàtte seen démb fàtte seeni valeur ngeen gëm loo leen ni nii leen bëgg ngeen mel ni nii lañu bëgg ngeen mel ni noonaay dox nag ba yëg si fi tey senegal góor ñee dàq fecc jigéen ñi te bu njëkk góor jomboon na koo def jomboon na koo def mais tey jii bu góor poojee jigéen ñépp te toog léegi góor ñi dañuy fecc bay naaw waaw te bu njëkk amul woon amul woon bandkat dañ daan wax ni lu jigéen bon bon man koo jur léegi star la Sénégal seet leen rek ku fiy def lu bon star nga réew mi waaye boo amee valeur soo moytuwul sax doo yegg bugguñu ko bugguñu bugguñu ku ku ku ku am ngar mi kuy ko as gor su set wecc soxlawuñu ko de li ñu soxla mooy kuy def lu ko neex yoru tur di yàq réew mi siiw waaw ñooñu daal moom moom la Sénégal <laughs> ñoom la sénégalais yi fan fi mu ne nii mais fan koo xamante ni dafa yor ay valeur gëm lu baax bëgg lu baax bëgg démbam bëgg histoire am dañuy defee ne sax dangaa tardé ñenn ñi ñoom yéen yéen a tardé ñi tardé dëgg mooy ñi umpule seen bopp ñi xamul seeni valeur xamuñu lu ñu war a def waaw kay